أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bii di buluux almaram tey ñuy jël bind bu bees muy baabul wudu buntu njàpp buntu njàpp la ñuy jël tey ci xadis 36e xadis ci sama téere ci sama téere xadis bi xadisu abi hurayra la mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal annahu qaal lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bissiwaaki maa kulli wuduin axrajahu malik wa ahmad wa nisaa'i wa saxaxahu ibnu huzayma wa zakarahu albuxaari taaliqan mbokk jullit yi xadis bi abu abi hurayra moonu ko nettali abu hurayra nag mooy kan jàlloon na fi jàngale woon nañ kan mooy abu hurayra abu hurayra ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne lawla an ashuqa ala ummati su ma bañul woon diisal ci sama xeet su ma leen bañul woon sonal su ma bañul woon teg leen lu ñu àttanul la amartuhum dinaa leen digal bis siwaak ci socc maa kulli wudu ci ànd ak njàpp mu nekk njàpp mooy njàpp rek balaa ngay jàpp nga socc def ko ci suba def ko ci tisbaar def ko ci tàkkusaan def ko ci timis def ko ci géey waaye bañ gi ma bañ ngeen soññ sonn moo tax rek santuma leen loolu ndax bañ ngeen sonn kon hadis bi ku dégg maanaam bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg di nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga def ko waxtu wu nekk waaw ndax dane bu ma bañul woon ngeen sonn danaa leen sant ngeen di soccu jamono bu ngeen di jàpp di waajal julli mu ne hadis bi Malik génne na ko Ahmad génne na ko Nisaa'i génne na ko waaye wéral na hadis bi ku ñuy wax Ibnu Huzayma al imam Bukhari am na lu mu taaliq ci hadis bi mbokk yi buñ ñëwee ci njàngale hadis bi hadis bi lan lay jàngale mu ne fa inna siwaaka min as-sunani allati xas alayha nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi soccu ñun ñëpp nañu ànd yëg ne dafa bokk ci sunna yi nga xam ne yonent bi ñaax na ci nit ñi pour ñu sonn ci soccu dafa bokk ci sunna yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaax nañu pour ñu koy def wa huwa min sunanil fitri moom socc dafa bokk ci sunnaay laab sunna boobu nga xam ne yambari al muhafazatu alayha dañoo war a li ñu war mooy ñu sàmmonte ak moom ñu respecté ko di ko def jamono ju nekk waxtu wu nekk guddi bëccëg ñu sonn pour def ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññ na nit ñi pour ñu sonn pour di socc mu ne waqad kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam yuhafizu alayhi wala yatrukuhu abadan yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ku respecté woon soccu la ba ba muy sukuraat nga xam ne mi ngi tàggu nit ñi di waaje génn àdduna jëm rafiul aala jëm ci boroomam yonent bi li mu mujjee def mooy soccu nekk na ci sukuraat yaay aysa ngi tàllal tànkam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi njaganoo tànku yaayu ay yaay Aïcha bi Abdallah duggee mu ngi gis Abdallah mu ngi sex soccu arak yonent bi xool socc bi xool Aïcha mu ne Abdallah jox ma socc bi ñu daal di ko koy jox yaay Aïcha sàqamil ko ko ba mu mun ko yëy ñu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daal di bomb gémmiñam kon ci su- li mu mujjee def ci dundam sax socc bokk na ci yonent bi socc daf ko yitteeloon ba foo ko fekk muy dox socc mu ngi ci poos bi mu ne mus ko bàyyi waqad qaala ibnu abbas radiallahu anhu wa ma zaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamuruna bisiwaak hatta zanantu annahu sa yanzilu alayhi fiihi ibnu abbas nee na yonent alayhi salaatu wasalaam dañul di ñu dénk socc di ñu ñaax di ñu soññ pour ñuy socc fu ñu toll ba ñun ñu yaakaar ne day yàlla dina wàcce alquran ci mbirum socc gis nga de kon yonent bi wax na ci ba ibnu abbas dafa ne ndax yonent bi ni mu sonne ni mu ñu koy waxee lii yàlla dina ci wàcce dara pour yàlla sant na ko kon yonent bi santaane na socc mbokk yi mu ne lihaza kaana la budda min maarifati ahkaamihi wa aadaabi kon nag comme yonent bi daf cee sonn comme yonent bi daf daf ci ñaax nit ñi daf leen cee soññ kon war na ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ te yonent bi doon wax ak ñun ñu xam atte yi xam teggin yi wa ma yustahabu fiihi ban heure lañ war a socc lan lañ ci bëgg wal mawaadi allati yustahabu fiha ak barab yi nga xam ne bëgg nañ nga socc fa kon jullit bi war naa xam lii war naa xam àttey socc war na xam tegginu socc war na xam barab yi ñu bëgg ku fa socc war na xam barab yi nga xam ne soppuñu ku fa socc loolu yëpp war nga koo xam moo gën rek nga dégg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññ nañu pour ñu socc rek nga gàddu sa socc fu nekk rek ku fi la gis rek yaa ngi karaj karaj loolu tamit bu yàggee dafa am leneen lu muy jur kon comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññaate na ci fexeel nga xam yonent bi ni mu ko bëggee woon ak ni mu ko santaanee yow jullit bi comme da ngaa bëgg tiyaaba nga jaar ci yoon woowu lu njëkk mooy ñu def taarif bi taarifu siwaak maa huwa siwaak lan mooy socc lan mooy socc kan moo ma koy wax lan mooy socc setal gémmiñ lan mooy socc keneen socc mooy lan laabal gémmiñ loolu kese yow benn bant bu ñuy jëfandikoo ngir jooñ suñuy wëñ ah kon bant rek la mën a doon su mënul nekk xeer mënul nekk xeer weñ nag weñ nag benn weñ weñ wala weñ kenn ko socc ah allahu akbar ah wa huwa yutlaq ala al fi'li tasawuk atasawuk wa ala al uud allazi yatasawwaku bihi kon dañ ko boyalee firi ko soccu bant buñ koy defee bant bépp bant boo jël bu laab bu set ah nga jël ko defar ko ba mu baax di ko bombe say bëñ pour mu set loolu la ñuy woowee soccu ñaareel mooy alxikmatu min assiwaak lan mooy secret bi nekk ci soccu lan moo tax ñu ne nit na socc lu tax ah beneen keneen awalan awalan mooy socc day setal gémmiñ mbokk yi gémmiñ war na set fi ñu gën a bëgg ci doo ya- yaramu doomu aadama mu set gémmiñ ci la bokk xoolal gémmiñ mooy def lépp liggéey bi gën a rëy ci doomu aadama kan moo koy def gémmiñ moo koy def wala gémmiñ amul njëriñ ah am na njëriñ kon war na set ni ñuy toppatoo bopp pour mu set di toppatoo bët pour mu set di toppatoo bakkan pour mu set di toppatoo nopp pour mu set di toppatoo tànk di toppatoo loxo gémmiñ nag gémmiñ moo war a njëkk a set ndax liggéey bi gën a rëy bi doomu aadama yi def gémmiñ moo koy def ndax mën ngaa dem fenn te gémmiñ demul mën ngaa dem fenn te gémmiñ demul hmm. mën ngaa wax ak kenn te gémmiñ waxul mën ngaa lekk te gémmiñ dugg ci looy def communication looy def lépp gémmiñ la kon gémmiñ war naa set war nañ ko toppatoo defar ko ba mu baax kon xikma bi mooy socc mutaharatun lil fam day setal gémmiñ waaye mardatun lil rabbi day kontaan loo yàlla allahu akbar gémmiñ bu set rek yàlla day kontaan ci borom gémmiñ googu kon war nañu góorgóorlu de fu ñu gis rek war nañu yor socc di ko utiliser comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax ñetteel hukmu siwaak maanaam gis nañ taarif bi lan mooy socc gis nañ lan mooy hikma bi lu tax ñu sant ñu ko léegi lan mooy atte bi hukmu siwaak al awal an nadbu borom xam-xam yi jëkk a wax nee nañ dañ koo sopp nee nañ socc dañ koo suñ ne an nadbu lu muy tekki mooy du farata an nadb wa huwa alqaida al amma inda al fuqaha al mazahib al arbaa loolu benn régal la boo xam ne borom ngir yi nga xam ne ñoom ñoo yor ngir yi nga xam ne ñoo gën a siiw muy ñeenti ngir ñu leen di wax mazahib al arbaa ñoom loolu la ñu wax mazahib al arbaa kan ak kan la abu hanifa ahmad hanbal ak malik Shafii ah loolu juróom juróom la ngeen wax de kon te ñeent laa waxoon nañ vérifié waat Abu Hanifa Ahmad Malik Shafii aha kii nee na Bukhari très bien Bukhari bokkul ci ngir yi de ngir yi ñeent kese la Abu Hanifa Malik Shafii Ahmad ñoo ñooy borom ngir yi ñoom ñeenti ñëpp ànd nañ nee nañ dañoo koo sopp asaani ñaareel bu wax bi al wujub ñooñ dañ koo waral dañu ne farata la dafa war socc farata la wa bihi qaala ishaq ibnu ruwayha ibnu rawayha ishaq ibnu rawayha nee na socc daal dëgg-dëgg farata la dafa war dafa jaadu laqad raa an al asla fi l istiyaaki al wujub la nadd mu ne moom ñu ñu gis ci cosaanu socc mooy farata la du lu ñu sopp farata la waaye lan moo tax ñële ne dañ koo sopp mooy li yonent bi ne lawlaa an asuqa su ma bañul woon ngeen sonn su ma bañul woon ngeen am jafe-jafe kon loolu moo tax ñoom ñu wax loolu mu ne lu tax beneen ñetteelu wax bi naa gis nañ ñaari wax ñee nee nañ dañ ko sopp ñii nee nañ dañ ko farata la ñii ñoom ñu ne al karahatu dañ koo sib lu tax is istaaku fi siyaami baada zawal inda shafia wal xanaabila ñu ne lu tax ñu ne weeru koor bu jotee su ngoon jotee kenn waratul socc su ngoon jotee kenn waratul socc weeru koor ñii ñoom loolu lañu wax ah lenn ci waa shafii ak xanaabila yi ñoom loolu la ñuy wax ak ata li xadiisin la xulufu famu saayim afdal ind allah yonent bi alei salatu salaam nee na gémmiñu ko woor xet gi moo gën a neex indal ci yàlla ci parfum misk waaye xadiis bi dafa daayif ñii seen wax dafa daayif ñu ne socc dañ ko sib ci weeru koor seen wax dafa daayif kon daal ñaari wax yi ñoo fi wér mooy socc dañ ko ko sopp ñeneen ñi ne socc farata la am na ñoo xam ne moom socc farata la ci ñoom ndax borom gémmiñ goo xam ne ku mu waxal nga du mooyu kër goo dugg ñëpp daw mbooloo moo jib ñëpp ñu ne ñëpp tasaaroo kooku yow socc yow coow farata la te doomu aadama nag wax dëgg yàlla waru xaar ba yegg foofu nit war na rus di egg foofu war nga toppatoo sa gémmiñ war nga toppatoo sa bopp war nga toppatoo sa yaram ba sa gémmiñ wax dëgg yàlla mu set wécc gën a set ci sa yaram mbokk yi mawaadiun yustahabu fiha asiwaak barab yoo nga xam ne bëgg nañ nit socc mawaadiun ay barab yoo xam ne ay place yustahabu fiha sopp nañ ci asiwaaku socc bu ci njëkk mooy alwudu booy jàpp bëgg nañ nga socc sooy jàpp ñëwal nga toog ci lu kawe jublul penku ah soccul ba mu set nga doog a commencé jàpp leer na kon booy jàpp suba booy jàpp tisbaar booy jàpp taksaan booy jàpp timis booy jàpp gee yëpp bëgg nañ nga socc ñaareel bi assala julli booy julli balaa ngay julli war nga socc balaa ngay julli war ngaa socc ndax sa gémmiñ set kan ngay waxal yàlla boo doon dem ci président nooy def di nga dem jënd ji pat bi gën a seer ci pat yi nga patu juróomi yoon ci bis bi suñu la nee yow looy defee nga ni président la moo may recevoir tey nga bëgg soo demee sa gém booy wax ak moom sa gémmiñ ngi di xeeñ lu neex wala wala yàlla nag xoolal ngay julli di jàng alquran téere yàlla ngay wax waxu yàlla kon sa gémmiñ bi war naa set kon sooy julli war ngaa socc qiraatul quran booy jàng alquran sa gémmiñ gi war naa set war nga socc ñaata lañ limagu ñett wax ma ñett yow ñett yi ma waxagum wax ma ko bismillah jaaraat ji ah kon yow da ngaa toog ni ci biir jàkka ji rek comme ça quoi jaaraat ci ok non bàyyil ma yow tamit dul kii bu soobee yàlla bu ma limi su ma limaatee yeneen ñett dinaa joxoñ keneen toogal foofu rek dégg nga di nelaw booy jàpp war ngaa socc booy julli war ngaa socc booy jàng alxuraan war ngaa inda zikrillah booy tudd yàlla war ngaa socc inda zikrillah booy tudd yàlla tabaraka wa taala booy def ay azkar def say zikr war nga socc qiyaamul layl boo jógee guddi di julli di naafila war ngaa war ngaa socc li mu jaama innaas booy dajee géeg nit ñi war ngaa socc ñaata laa limagum ñaata laa limagum juróom-benn kan moom limal juróom-benn yëpp bismillah non dama koy lim ni ma ko tegalee kan sooy jàpp ah sooy julli keneen bismillah kenn eh noppil eh toogal foofu sooy jàpp sooy julli booy jàng alxuraan booy def ay askar booy julli guddi keneen booy daje ji ak mbooloo azihab ilal masjid booy dem jàkk aussi war nga socc wala yonent bi dalaan wax ne ku gémmiñam ku reer a laaj ku reer a laaj bul julli si gee ku reer a laaj bul julli si gee la moo tax yonent bi ne ku reer a laaj bul julli si gee xet gi laaj bi day génn ci jàkk ji da ngay gêner nit ñi kon jàkk ji waroo faa yóbbu sa gémmiñ gi xet goo xam ne day lor nit ñi kon booy dem jàkk na nga socc juróom-ñetti place a ngi nii yoo xam ne bëgg nañ ku fa socc ndax jeex na inda liqaa'il ahl booy dajeeg sa waa kër yaag sa waa kër ah yaag sa soxna ngeen di tëdd war ngaa socc inda qiyaami min an nawm boo jógee ci nelaw balaa ngay def dara war ngaa war ngaa socc yowmul jumaa bisu àjjuma booy julli ji war ngaa socc baadal akli boo lekkee ba pare war ngaa socc gis ngeen place yi ni mu bëree doomu aadama mbokk yi bu dëkkee ci li ndax gémmi ñoom dina am problème ah fukki barab ak ñaara ngi ni yoo xam ne war nañ cee socc taxayuru raihatul famille soo sentiree ne sa gémmiñ xet bi changé na war ngaa socc wa aklu maalahu raiha saa yoo lekkee aussi loo xam ne dafa am xet nga sentir ne lii ma lekk dafa am xet su ma ko bàyyee day xeeñ ci sama gémmiñ comme laaj comme soble comme comme poobar dafa am xet ah comme yiit comme nattetu yooyu boo ko lekkee ba pare balaa ngay dem jàkk ja mbokk yi war ngaa socc xam nga ni dafa xeeñ pour sa gémmiñ set balaa ngay yóbbu ca jàkk ja xet wala ngay des sax ci biir dëkk bi ci biir kër gi ci place yi sa gémmiñ gi di xeeñ ñu naan kii lu mu lekk isa qaama min al-layl boo jógee guddi waxoon naa boobu boo jógee guddi di naafila war ngaa socc waaye tamit naafila boo jógee jàpp ci julli sa ñaari ràkk balaa ngay def ñaari ràkk yooyu di naafila ak naafila bu mu mun doon balaa nga koy def balaa nga koy def war ngaa socc ñaata la ñu lim yoo xam ne war na nit war na cee socc ñaata barab ah fukk ak benn ëppal naa loolu ëppal naa loolu ëppal naa loolu su ma paree darsi bi insha allah ku wax yiw rek dina am kado bu ma la jox kayfiyatu siwaak naka la ñuy soccoo قال الإمام النووي رحمه الله والمستحب أن يستاك الإنسان عرضا ولا يستاك طولا borom xam-xam bu ñuy wax imaamu nawawi mu ne bëgg nañ nit buy socc mu soccoo ardan la tuulan yaatuwaay mu bañ a soccoo gudduwaay gémmiñu nit fan mooy yaatuwaay ak fan mooy guddaay ah yaatuwaay mooy nii guddaay mooy nii kon fan lañ bëgg nga soccoo argon yaatuwaay yaatuwaay mooy nan mooy nii imam Nawawi loolu la wax mu ne bëgg nañ nit soccoo yaatuwaay bi mu bañ a soccoo guddaay bi almaru wa rajul fi siwa fi zalika sawa loolu nag mbokk yi góor ak jigéen ñoo ci yem bu leen yaakaar ne lii ñuy jàng nii góor ñi kese la concerné waaye góor ak jigéen ñoom ñoo yem ci socc ni góor war a sonnee pour gémmiñam set pour jaamu yàllaam yàlla nangu ko pour gémmiñam xeeñ leer set neex noonu la ci tamit jigéen bi war a sonnee place yi ñu doon wax tamit ne nit war na cee socc góor ak jigéen ñoo ci yem maanaam lii ñuy wax nii góor ak jigéen ñoo ci yem min fawaidi siwaak mbokki njëriñu socc njëriñu socc qaala ibnu alqayim rahimahullah fi siwaak iddatu manafi boroom xam-xam bu ñuy wax ibnu alqayim nee na socc njëriñ yu bëri ñoo ci nekk bu ci njëkk mu ne yu tayibul fami day setal gémmiñ day teeyal gémmiñ da koy neexal day tax gémmiñ gi set ñaareel bi mu ne wa yasuddu lassata day dëgëral siiñ siiñ day tax siiñ bi dëgër siiñ bi wér ñetteel wa yaqtaul balgama day dindi mbuuraan xam ngeen mbuuraan mbuuraan am na ñoo xam ne seen gémmiñ dañuy jékki-jékki bu ñu màttee mburu sax gémmiñ gi nàcc su ñuy lekk sax gémmiñ gi day nàcc bu ñuy wax da ngay gis gémmiñ gi nàcc boo leen laalee sax ci gémmiñ nga gis gémmiñ gi nàcc loolu xam nga feebar la loolu ñàkk di socc ñàkk satal sa gémmiñ moo koy def loolu musiba naarul laay la loolu ab nit warul toll foofu ci gémmiñam te dama nga woon ma paabaa yow dama nga woon ma paabaa yow demal yow eh dama nga woon ma paabaa doo teg rek leen mu ne bokk na ci njëriñu socc wa yaxullul basara day defar ay bët gis nga kuy socc di defar say bëñ yi sa bëñ yi bu ne këkk dëgër ah sidit yi ci nekk day defar bët yi bët yi day set wi foo gis borom gémmiñ bu set bëtam yi day leer ñaata laa waxagum ci njëriñu socc ah ban ak ban la waaw mhm waaw day leeral bët juróomeel mooy wa yizhibu bil xafarat day dindi rattax rattax yi gémmiñ xam ngeen gémmiñ boo yendoo wax wala nga fanaanu nga fanaan noonu tëdd soo yeewoo da ngay sentir sa gémmiñ changé mais amay rëttax rëttax ah socc daf koy dindi wa yuslihul maida day defar am aussi maida mooy fi lekk yi di daje ndax gémmiñ gi lekk bi fi muy njëkk a jaar bu setee kon fi muy nekk day set waaye bu fekkente ne fi muy njëkk a jaar dafa salte ça veut dire que day yóbbaale ci mbàq bi dafa yóbbaale feebar ndax ay tilim tilim la fay lay lay jëlee ci gémmiñ gi daal di koy yóbbaale mbokk yi wa yusfi suura socc day defar jëmmu nit day defar kanamu nit day tax nga leer juróom-ñetteel wa yuinu alal fahmi day tax ngay gaawar a comprendre day tax sa xel set ngay gaaw a comprendre li ngay jàng waaye day tax aussi li ngay sàqami teel a mokk ndax day fekk say bëñ set na amul lenn benn bu ciy métti yépp wér na sooy màttee mu dagg boo yee mu mokk mbokk yi bokk na ci socc li muy def mooy wayu saxilu majaral kalaami day tax sa wax sa wax neex yomb nga am facilité wax ji di di di gaaw a génn loolu yëpp bokk na ci socc li muy def wayu nassitu lil qiraa daf lay sawaral pour nga mën a liir wa zikri pour nga mën a jàng pour nga mën a tudd yàlla tabaraka wa taala pour nga mën a julli ah waaye beneen bi bokk na ci li muy def wa yatrudu naw ma day dàq nelaw saa yu gëmmentoo boo soccee ah wol paaba kay dama woo paaba muy baal gis ngeen paaba li ma dénk baax na ko woowee fii moytu leen mu ne wa yujibul malaayika socc dafa yéem malaaka yi kii socc li muy def loolu dafa yéem malaaka yi bàyyi leen xel ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na gémmiñ gu set ah xet gi dafay neex malaaka yi kon njëriñu soccoo ngoog wa yuksirul xasanaat day bëril ay tiyaaba kii socc dafa bëri tiyaaba kon yii mooy fawaidu siwaak su ñëwee ci aalatu siwaak waaw ban jumtukaay lañ war a soccoo aalatu siwaak lan lañu war a soccoo ndax objet bu ñu jël rek def suñu gémmiñ ndax bu ñu neexee rek ñu jël benn weñ wala benn xeer wala benn benn benn rek commencé dugal suñu gémmiñ déedéet yatasawwaku bi kulli uudin la yadurru wa qassamahu baadu alfuqaha ila arba aqsaam bi xasba afdaliyatihi nee na bëgg nañ julli bi buy socc mu jël bépp bant boo xam ne du loraati mu soccoo ko boroom xam-xam yi xaaj nañu xaaj garab yooyu wala bant yooyu ñuy soccoo ci ñeenti xaaj ci xeetu ngëneel ñu ne bii moo gën bii moo ci topp bii moo ci topp ba mu jeex afdaluha huwa al araak bi ci gën mooy socc araak araak la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan soccoo socc araak xam ngeen bi may ñëw préparé woon naa pour indi leen socc araak dama ko fàtte ci sama kaw taabal waaw moo ngi nii lii mooy socc araak socc bi moo gën ci socc yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii la doon soccoo bii mooy soccu araak kuy socc ngoo amee bii moo gën bii moo ci gën même am na patam bii gars yi defar nañ ko pat dentifrice waaye ku am bant bi moo gën di ko soccoo moom mooy soccu araak am na beneen bi ci tegu mooy garabu tàndarma branche yi ci kaw foofu tàndarma bi di nekk xam nga am nay bant yooyu moo ci tegu sa beneen bi mooy li ci tegu ñetteel mooy sajaratu zeytuun garabu zeytuun boobu moo ci tegu yeneen li ci tegu mooy bépp garab boo jël rek baax na fii ci sunu réew am na ñuy jël sump am na ñuy jël dartax kii daxaar am na ñuy jël nem-neb am na ñuy jël guro yooyu yëpp ay xeeti bant la yoo xam ne ab jullit bu ko ci gën a jekk bu ko ci gën a jege rek nga xam ne du ci am problème mën na koo jël soccoo ko même garabu niimaa bi gis naa ñu koy dagg di ko soccoo même filaawoo gis naa ñu koy soccoo filaawoo garabu filaawoo gis naa ñu koy soccoo kon ngeer oui yooyu yëpp gis naa ñu koy soccoo kon dépp bant boo xam ne bant bi baax na nit mën na ko jël defar ko ba mu baax di ko soccoo dina baax nga jël ko soccoo ko waaye bu fekkee ci problème mu ngëneel la nag yéema njëkk lim ñoom ñoo gën araag moo gën garabu tàndarma topp ci banqaas yi ci kaw car yi beneen bi ci tegu mooy garabu zeytuun bi ci tegu mooy bépp boo xam ne xetam neex na xet gi neex na boo koy soccoo di nga sentir sa gémmiñ mu am xet bu neex mën nga kaa jël nga soccoo ko ban loxo lañ war a soccoo hal yumassaku assiwaak bil yumna aw il yusra gis ngeen borom xam-xam baa wiñ dara gis nga biñ tàmbalee ni lépp lan nu indil ban ban bant nga war a soccoo kan moo war a socc yan heure nga war a socc fan nga war a socc ah yooyu yëpp gis ngeen borom xam-xam yi jàngal nañu ko pour rek sunu diina mën a ñoŋ pour ñu nekk ay jullit pour ñu mën a set pour ñu mën a laab bu ñuy dajeeg suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom kaana yujibuhu atayaamunu fi tanaxulihi wa tarajjulihi wa tuurihi wa fi sha'nihi kulli yaay Aysa la wax yaay Aysa nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu doon def droit la koy defee lépp lu mu doon def droit la koy defee lépp lépp droit buy peñewu droit lay njëkki buy lekk droit lay lekkee suy solo droit lay njëkk a dugal yére bi su fekkee ta tubéy bi la mu njëkk a dugal tànk bi lépp lu muy def buy nuyoo ndeyjoor lay tàmbalee suy naan suy joxe ndeyjoor yonent bi alei salaa salaam ndeyjoor daf kaa yéemoon ci lépp su daan sol dàll su daan dox su daan sangu mbiram yépp ndeyjoor la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee kon nañu roy yonent bi ci ndeyjoor looy def defe ko ndeyjoor càmmoñ ci ñaari place dong la war a njëkk a dem càmmoñ ñaari place benn bi ci kaw benn bi ci suuf benn bi ci kaw benn bi ci suuf foofu dong dong dong dong la càmmoñ war a jiitu ndeyjoor ci ñaari place yooyu te ñaari place yooyu yëpp ci nit la nekk benn baa ngi ci kaw benn baa ngi ci suuf bi ci kaw mu ngi tudd bakkan bi ci suuf ku ne xam nga ko wala wala xamul leen ko ma wax ko xam ngeen ko ah bu ngeen xamul dama wax ko man léegi nag bàyyi leen ko noonu aywa loolu mooy sunu darsu tey ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ñun dégg ak topp hadis bi hadisu abi hurayra la radiallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki maa kulli wudu axrajahu malik wa ahmad wa nisaa'i wa saxahu ibnu huzayma wa zakarahu albuxaari taaliqan nee na jëlee nañ ci abi hurayra nee na yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su ma bañul woon diisal nit ñi lawla an asuqa ala ummati su ma bañul woon sonal nit ñi su ma leen bañul woon diisal la amartuhum dinaa leen digal bi siwaaki ci socc kañ maa kulli wudu ci njàpp mu nekk dinaa leen digal ñu daal di socc kon loolu mooy sunu darsu tey ñu ngi ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def suñu dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu